Cheikh Ibrahima Niass lañ yaakaar bay Niass am na ci ñoo xam ci si Tuubaa rek lañ gëm am ñoo xam ne ay taalibe Cheikh lañ ko kër gi jaxasaane bi am dañu seetloo am na ci ko xam dama dafa dafa bëgg Sëñ Tuubaa bëgg Sëñ Thierno Diouf Lambaye bu ko comme Sëñ Thierno. yow lii nga def yaa ibrahim Ibrahima Samb nii ngeen def rëy na ndax biir na bi nii amoo jot tey sonn na waaye wallaahi xam naa ni bëgg gi bëgg sëñ Tuubaa Aliou Seye xam naa moo tax nga ñëw muy bu baax moom boo gisee mbiram demee nii dama koy wax toujours jot dama ko naan yow yoroo ji koy ndax xarit foo fekk dafa am kersa wallaay laa dafa bari kersa bërki démb dama koy seetaan ki ma toogal dama ni ko xoolal sama waa ji moo rafet xol xoolal mu ko ndeysaan kon noo ngi ñaan ci barkeem Seexul Xadiim sa naqar na yem tey yàlla nag ku baax yàlla du teg yàlla du teg kenn naqar ñaari yoon te wax naa la ko démb ci armée bi nee naa la sa baay bii moom wàcc ndax Baye Sarr bu dee diine ak lislaam ak maanu ak julli ak fokk njaboot moo yóbbu nit àjjana kon ma nga àjjana wallahi la asin yo ku ko ku ko gisoon gis mooy rek séddaare bi dugg ci jàkk ji li may wax nag lu ma làmbatu man fii laa dëkk kër gi laa daan toog fii lépp fi laa ko defee lépp fi Gris Bordeaux ngi nii yoo xam ne lii mu def maa ngi lay sant ndax bu ma la santee Alioune Seye moo la sant maa ngi baax ci lii nga def rafet na lool Alioune yi mii nit ku baax la ñun ñoo ñun ñoo dëkk ak moom Alioune Seye nit ku tabel Alioune Seye day yor day Alioune Seye day yor benn xaalis nga dajeeg moom ni boobu aw ma dépense mu jox la ko wallaay la asib bu ma dajeeg bu ma dajeeg moom su ma takkee yonent su ma tuddee si Tuubaa lu mu yor daf ma koy jox léeg-léeg nii laay jaar sol sama yére di dem ay jàng jaar fii ni ko daa bëgg ubbi ma su ma yëkkatee ñu nekk ci poos bi ñëpp la may def nit ku baax a ngi nii nit ku baax a ngi nii na ngeen ko ñaanal te jàppale ko te jàppale ko bu baax a baax a baax waxoon naa la nag ni la jafe-jafe jeex na ndax yow li nga daj da ngaa sonn naa la ko fii laa la ko waxee waaw woon na trop waaye waaye yàlla ku baax la yàlla ku baax maa ngi ñaanal sa naqar yàlla na fi yem waaye nag di sant say mag say mag lay sant lépp ñoom la Pape Ousmane Sarr maa ngi leen di sant bu baax a baax di sant say waajur ndax boo juddu woon fekkoo waajur yi ne ci diine ak islam doo ci nekk ñoom ñoo baax li nga mel say waajur ñoo ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal jërëjëf. jërëjëf Alaaji Mandaane yàlla yàlla teral la li nga wax léegi rek ci Alioune Seye. kaasu xottu gerte waaye goor soo ko jox mu doy ko te da ngaa mën a joxe teraanga da ngaa mën a joxe wor ma daf may fekk ci géew ma toog nee tëggkat yay tëgg toog nee mais day dem teral nee ëlbatiku dana fexe ba gis buur géew fa mu ne ni ma ñëw jéeri boo ne teel ma waaye li nga moom man dootuma topp kenn yàlla dimbali ma maa ngi liggéey maire barke Serigne Touba waa Thiel ñoom nit da ngay sant yàlla sant suñu borom waaye ki la defal teraanga kooku mënoo koo la te da nga doon defal teraanga. kala noonu la magam fu ma fekk noonu la may def. borom lu gën a waaye xoolal teraanga ji ñu jëflante fii léegi Père Mbow. Cheikh Diop am fu mu war a jàng Ibra xam ne dafa war a dem mënu ko déedéet doo dem barkeelu ba noppi. waaw mais teraanga jooju nit bu ko defee sëñ Fallu Mbàkke bu baax nee na nit bu defee teraanga dana ko weer ngir ñi ko war a def te def kon nag président bi leader du Sénégal Gris Bordeaux bu ñëwee war nañu ko mën a fësal képp ku yàq lu lamb te mu ñëw def waaye boo teewee nag danañ ko yëg les jeunes leaders gaa ñëpp te ku ñëw yow la ñëwal liiru jaana bi fi dem ba tey dem animé ne lu ne mu def ko tey ci suba bi ñuy laaj dama gis liiru simmi mbaxanaam ak waaye gor nga garmi nga kon per boobu ma bàyyi leen rek nga ko ko Cheikh en attendant nit yi jox ko di Cheikh bu doon benn kàddu sax di ko may te yàlla képp tax ak sëñ Touba bisimilah. jërëjëf. ku bëgg sëñ Touba bëgg ko. kon soo horma biñ lay jox horma biñ lay jox ala kulli xaal soo ko ko am ko am. say rakk jànkat lañ ñoo la fi jëkk waaye boo dikkee fàtte nañ seen te loolu cër la bàyyam bu Moussa Giri kii bàyyam bu bu yaram ñu sa tane mbana mbana ndox wala mbanak mbaxar ci àdduna barke Seydina Mohamed boo ko tuddalee Serigne Touba mu dugg ci biir génn mel ni ku dugg ci biir génn ba pare weex tal loolu xalaax fa la ngëm yam moo tax baayam ak sama maam bëgg moom daa mel ni ñoo ñooyam moo ko Moussa ni ko maa la gën a bëgg Seydi Hadji Malick mu tàpp ci teen bi ku Moussa tàpp ci teen teen gis nga gaay yi xamante ni ñooy gaay baax yi ñu topp nii ku leen topp def dafay bés boo xamante ni yëf yi damay wax ni dara bu bàyyi fan la kenn ku ne da morso mais boo diggee ci mbooloo dana la jox sa wàccuwaay man doomu teew sax xam nga loolu sax ba lu la wokk ci àdduna xuri ma ndax Seydi El Hadj Malick bi nu bokk loolu la yàlla dogal tey soo àndee ak euh, sa équipe bi nga àndal nii Saalum Saalum toog ak sama xaritu bopp bi ah melul mu xullee maag moom ba Casamance sëñ Modou du ko doon doon ko tëgg fekk booba mu tombe Brésil yi di bëri ak Abdou Diouf man maa leen yóbbu ñoom ñëpp laa. Français nekk ne ci ginnaaw. ak l'ensemble la SADA ETDR établissement Touba Darou Rahman di entreprise bu mak bu yëngu ci walu BTP travaux de bâtiment génie civil manam lepp lu jëm ci walum tabakh kër réhabilité wala réfectionné dañu ci taxaw ba mu établissement Touba Darou Rahman su la neexee mën nañ la jox kaya amee am gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moy liko dalé ci fondation élevé tabakh xuule ak raax ci second œuvre bi nak ci ngeen di électricité ak plomberie ETDR amna ñu ay boutique